lislaam ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin lislaam dafa yittewoo ñaari set merci moo doon yaakaar naa dem ba ne benn da nga yittewoo yàlla mu ne yàlla de dafa bëgg ñii setal seen biir ci tuub ba pare setal seen biti ci allah yaakaar naa merci ma la moom ci biti da nga yittewoo naka noonu yooyu sallallahu alayhi wa sallam one of the issues bu ko lislaam yeggale ba ne at-tahuuru shatrul iimaan ak la ak set ci lislaam daf koy compte mu nekk genn wàllu ngëm ngëm yëpp li mu laaj buñ ko xaajoon ci nit set rek jël na place bi euh, naka du lislaam seetlu ngeen ne yittewoo setul yaram woowu fu mu toll di set tax na nit bu janaaba gaare ci moom daf koy sàmm obligatoire jigéen bu seetee ci baaxam wala am doomam obligatoirement day sangu ji naka noonu sunna cangu juma cangu ayid yi cangu dugg màkk cangu arma cangu tawaaf ila axiri yooyu yëpp yitte woo boole ko lislaam fi mu wute gaa yi moom bi mu lay lu la wax rek njëriñu àdduna ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki nga xam ne dafa sangu bisu àjjuma ceeb lu rafet mu laab laab bu set wecc sol yeneen yu rafet yu set boole ko xeetu parfum bu neex jël mu am dem ca jumaa ja coowu fa defu fa yenn bruit deqalewu ñaar mu toog mu toog seen diggante kooku bu fa jógee day ànd njëkkalul àjjuma ba àjjuma dellu si lii. lu àllaaxira la bokkul ak li nga xam ne ku nekk xam na ne odeur bu neex nooyu ko gars yi danañ yokk fan soo yére yu set yu rafet yaram mu set ila axiri euh, bu ñu boolee lislaam noonu la yittee boo sol bu rafet bu ba yàlla subhanahu wa taala dénk julli bi ne leen yaa bani aadama xuzu ziinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu walaa tusrifu yéen doomu aadama yi fépp bu ngeen di jaamoo yàlla na seen col rafet na set na rafet na yaa ngi tey kat nag daleen lekk daleen naan waaye ñu bëri di ëppal di yàq ndax yàlla ëpp nee bëggu nee ëppal di yàq kon laaw bu yaram na ko lislaam yittewoo noonu la yittewoo rek seetu ay yére xam ngeen ne yére yi même bu laaw bu julee yàlla ko nam xamante ne julli xoolal yonent bi ca fajaru ba ko yàlla di yónni nga xam ne boobu mën nañu wax ne ay fan lay doon rek jaay ko ne yaa ay fan mu des de kum fa am si wala ba ko kenn du ñu dem wa xiyaar wax kenn say yére nañ ko laal say yére nañ ko laal donte am na yenn firi yu ci borom xam-xam yi wax ci xóot waaye li fekk ci kaw yëpp di ko dégg moom mooy siyaar bu mu gannaaw nga mën na jàppootal génne ca yeneen kon lislaam ni mu yittewoo setu yaram bi noonu la yittewoo yittewoo setu yére yi noonu la yittewoo setu palaas bi ngay taxaw di julli loolu tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha tayyib yuhibbu tayyib yàlla subhanahu wa taala ku la ku bëggit lu sell la du nangu ëppal diina la ju yàlla gërëmal jaamam yi depuis mu wàccee seen bàyyi aadama ci kaw suuf te it dafay des ba keroog yàlla di jël suuf ak li fi nekk la yàlla connaître reconnaître ci diina l'islaam lay doon inna diina inda allahi lislaam wa man yabtaghi ghayra islaami diinan falan yuqbala jël lu dul islaam yàlla du ko nangul dañu fekk diina ni ngi teewu wàllu lekk wàllu lekk te xam ne kenn mënu dund dund ba baax te fekk lekkut euh, maa ngi ko doon wax sànq ci suba docteur ma ne malaat lu jàqal docteur yi lu dul ba ñu ne lekkatut waaye lekk googu terewut lislaam dafa soxla buñ ca ëppal buñ ko manqué buñ ca xaabaabal bu ñu ko go bu ñu ko xont tuutalal ko yàlla subhaanahu wa ne lekk leen naan leen waaye bu leen ëppal yàlla bëggul ëppalkat yi yàqkat yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne lekkal naanal solal saraxeel waaye nag ci lu dul yàq ak ëppal loolu itam ak puukarew euh, ñu xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñu orienté séeréer yi ngeen baal ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne doomu aadama pour sàmm wér-gu-yaram gi dëgg-dëgg dooyoon na ko ci lekkam ay tib yu ndaw yu xam ne ndiggam dana ci mën a taxawee dëgër mu ne waaye su fekkee dem na nag manut yem foofu fokk mu lekk lu bari na xaaj biir bi ñetti xaaj benn bi mu def ci lekk benn bi mu def ci naan benn bi mu def ci ngelaw ci la la ñuy fekkee ne lekk bu fekkee ingrédients yi ci war a ànd yëpp ànd na ca mooy élément moteur bi nga xam ne dana sàmm wér-gi-yaram su fekkee yem na yem na ci quantité bi yem na aussi ci yaram bi ñu koy def yem na itam ci temps bi ñu koy def bu ëppee lan la jur yaram bi day nekk benn dencukaayu graisse la muy njëkk jur duufaay duufaay googu nga xam ne lekk gu ëpp moo koy jur lan la mën a jural doomu aadama mën na ko jural euh, du toog ngeen baal ma defe naa yeneen a tuddee koy tuddee atéros keloros wala artère ci beneen maana muy euh, saraayeen li nga xam ne moo nekk ci doomu aadama day dal di wow na waroon a jëriñee dootu ko jëriñ mu mën a jur ay feebari xol duufaay boogu mooy dem ba tax res wi ci boppam day am graisse nit ki dundam dootu fonctionné na mu romb na foofu dana dem ba jural ko même wextan wi wextanu doomu aadama day wow comme ni ngeen koy tuddee calcul biliaire calcul biliaire di feebar bu garaaw ci doomu aadama xam ngeen ni lekk lu ëpp moo koy indi euh, romb na foofu coowal suukar yu bari yi yëpp lan moo koy waral lekk gu ëpp ci doomu aadama waaye dem ba ci la ca taaj tànk yàgg lañ cay jooy euh, nu ngeen koy euh, tuddee pied wari kër xam pied wari lu koy jur bokk na ci meññati lekk gu ëpp crise cardiaque bokk na ci meññetu lekk gu ëpp rhumatisme ak yeneen yi waxi noppi naka noonu dana yegg ci gas lekk lu bari gii nga xam ne l'islam da ko réglementé li ñuy tuddee maladie mentale même am na lum mu ciy jur romb na foofu trouble digestif sévère lekk euh, lekk gu bari dana ko jur ma bu ñu yemoon mu ci lislaam ni mu organisé wàllu set ci yaram ci yëre ci place ci environnement ni mu organisé wàllu lekk kon yaakaar naa ne fajkat yi ñu xëy suba ba nga jot dañu toog di waxtaan euh, li ñu waajaloon jeexul waaye li ñu mayoon ëpp na maa jël nañ ci lu ëpp loolu ñu ngi koy jéggalu di ñaan yàlla subhanahu wa taala euh, mu warsagal ñu ñu dégg dëgg-dëgg suñu diina war sagal ñu dund ko ngir ñu texe àdduna ak alaxira wax ji nekkul woon lu dul rek laltaay laltaay pour wane ne lislaam mi woote nii jataay bi du ko profane ci wàllu wér-gu-yaram duwut ci itam étranger waaye moo ca jiitu te moo cay raw ba faaw yal na yàlla may dëgg-dëgg lislaam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe